jërëjëf mbokk yi amati mbégte ak kontante bu baax a baax jàkkaarloo ak yéen ni ñu ko daan defee rek saa su ne euh, di ñëw di ko seet si di séq ak moom li nga xamante ni nag moo di jotaay di suñu papa euh, oustaz Iran Ndao saa ne noonu la koy séqee ak moom rek si jotaay di waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moo di xew-xewu jamono waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moo di actualité noonu rek lañu ñu ko defaatee tey dañu koy bàyyi rek mu nuyoog mbokku internet yi papa ñu ngi lay nuyu bu baax ndaw ok ñu ngi ndax ku leen xool xam ne ndaw yu bëgg liggéey ngeen seen coono yal na ko yàlla barkeel li may wax rek njiitu réew mi toujours ku am ñu mel nii dañ leen war jàppale waa doom buy débouré ak doom bu dul débouré hmm. dangay ngay jàppale kiy jéem hmm. ndax ka jéemul dara jéem ni ëpp kuréel gu juddu taxawal li nga xamante ni tey moo di féministe yu ñuy wax euh, ci avortement médical yi nga xamante ne moom la ñu bëgg a taxawal ci anam yi nga xamante ne ñu ngi koy ëmbalee yenn jigéen ñi ngir mën a dindi ëmb googu noonu tey taxawaay boobu noonu ci diine lan la ci diine wax. Euh, féministes yi nga xamante ne ñoo taxawal benn kuréel ay jigéen taxawal kuréel goo xamante ne ñenn ñi nga xamante ne ñu ngi leen di sàkku ñuy wan lor ci yenn anam ngir ut pexe ngir mën a dindi euh, ëmb googu noonu nga xamante ne ñu ngi koy teg xale yi lan la ci diina wax. waa xam nga bëgg Bàmba. ki najaayam ëmbal. wala baayam biiral ko. am na ñu seen baay di biiral. wala sa mag ëmbal la hmm. lu ma la wax rek hmm. am naa fu ma ko teg hmm. ñu ne bu xale bi màggee du baax ci famille bi kon nañ teel a yàq ëmb bi gis nga ñi koy dox seen bakken lañuy ñuy dox mais doxuñu ci seen borom déedéet gis nga bu ñu fàtte ne suuf si yàllaa ko moom jaam yi yàllaa leen moom droit de l'homme yàllaa ko moom nit moomul droit de l'homme yàlla tëral na ba pare ku mu mën a doon muy baay bu biiral doomam dañuy rey baay bi ndax dafa njaalo ndax am na jabar du ma jur doom ji kon am na jabar ku am jabar boo njaaloo dañ lay rey te bu ñu lay rey kenn du la dóor balu fetal déedéet dañ lay jamat di la jamat ba nga sedd guy parce que da ngaa njaalo di njaalo muy neex ci yow sa pay nag mooy jamat jamat muy métti ba nga dee amul leneen ñi koy dox doxuñu dara doxuñu diine maanaam kii la ñuy dox ak bëggin mbon yokkute dëgg dañuy bëgg mbon yokku parce que ki def loolu dañ ko war a teg ay sanctions yoo xam ne maanaam ay métti métti yoo xam ne dootul xalaat def ko mais suñ ne nañu rey liir bi lu ci yoonam de dama lay laaj lu ci yoonu liir bi mais yoonu liir bi nekku ci baay bi ak yaay ji la seen yoon ni yow yaa biiral xale bi doful jinne jàpp màndiwul màndiwoo dofuloo yéen a d'accord sëy seenub sëy la ca xew xew ca ba ngeen am ca doom lu ci yoonu doom ji bu doon dañu doroge ndaw si mm-hmm. su ci ëmbee ndaw si kenn du ko dóor charia du ko laal parce que dañ ko dorog wala muy viol viol bu fekkoonte ne tey viol nag am na nu ngeen koy tuddee ti du noonu da ngay gis ko ñu biiral ko am doom dem juróomi at ñu ne diwuma viole woon deux ans diwuma violé woon dem ba biir ne dañ maa violé woon déedéet viol da indi sa nàcc-nàcc sa yére yu xotteeku yuuxu ñëw ne diw moo doon viole bokk yi jóg ñu dem jàpp diw loolu mooy viol ci charia charia dafa bëgg lu leer waaye dem ñu biiral la nga toog ba sa biir màgg te yow da nga am coalition njaalo coalition biir hmm? waaw parce que góor gu ne dugal na ci kon coalition la <laughs> bi ku ne dugal na biñ demee ba dugal ñoom ñëpp nag ne dugal sa ñu am seen coalition liste si dugg bi xale bi demee ba biir ñu ne nañ seet coalition bi ku ci ëpp xaalis ñu ne mooma ñu ne alaaj yow yow mi yaa biiral xale nga ne déet du man mu ne yowa fekk ñépp ñëpp bokk nañ ci mais dañuy seet ki tànn ñu jox ko ko. mais loolu loolu loolu du viol. dañuy forcer xale bi. gaañ xale bi. not xale bi. ba yegg ci kawam. kenn du ko dóor bu ci ëmbee kenn du ko rey yoonam nekkatu ci. xam nga dafa am lu ngeen fekkewul. jamono ma wees mooy yekkataan. dëgg xam nga yekkataan. da nga non non du fooyee yàkkataan mooy da nga daan tollu ci denc jabar doo xam jigéen daan ngeen baal ma rek man sama wax du lëndëm dëgg la su ngeen yeboo noppalu ci Iran benn nit la ti du changé jamais gëwuma koy commentaire gëwuma dara yàlla rek da nga daan xool jigéen sa awra jóg mhm. booba da ngay toll ci denc ti doo mën a denc am déet booba la mballu xewoon xam ngeen mballu sësu jigéen ba sa awratu mais am na fu ñu ko wane woon temps yi ci ci ci benn kaar waaw ci tataay ah, def leen ko njàng de bu leen ko def ay kaf théâtre ma dangeen dem ci ñuy théâtre ngeen wax leen ko daan nga tiim jigéen sësu ko sa ndox sa mën yu di tuuru parce que sa xel day ne ci jigéen ti yow doo mën a jot ci jigéen boo wax kenn du takkal sa bopp jabar sa bàyyi la koy uutal sa bàjjan sa najaay ñooy séq kër gi ñu ne kon nag kër mii nañ ko may doomu tàntaam Ayda Babacar yëgul tinul ñu dox ko ba mu sotti ñu defar néeg bi defar lépp ne la sa jabar dana sëy si tey bul génn kër gi lii nga ci am su ñaawee sa yoon newu ci yow sëyoo ngir jigéen da ngay sëy ngir kilifteef. dëgg la su rafetee sa yoon newu ci. léegi nag xale yi ko rafet la ñuy seet waaye gis nga taar boo xam ne. fu muy mujjee yow safara la. ñàqaara la ko gënoon de. donc booba mballu am na. sa so daan nga gis ku jigéen xoolal léegi ngay uuf jigéen. ba jóg mu jóg. sa kanam du yëg ni jigéen nga uufoon. parce que suur nga jigéen nit ñi buñ demee ba seen jikko yàqu mënoo xëy bis boo njaalowul bu la neexee jour bu la neex bu la neex laa bëgg bàmba bu la neex rek nga njaalo yow kay yaay daw kooku nu muy mballooti nu mu yakkataani xam nga lu yakkataan da ngay dugg ci néeg xale bu jigéen bi dugg coron lal ba tëdd timis ngay tëdd su ndaw si dugg see booba lampi pétrole la amoon man duma xale xalel waxi mag laay wax mm-hmm. atum xiif bi fi la ma fekk mm-hmm. dama tuuti rek mm-hmm. màgget laa nga dugg ci ron lal bi teel a tëdd timis ndaw si tëdd dugg si ba tëdd nga bàyyi ko ba mu nelaw nga génn ndànk yegg ci kawam daan nga yegg ci kawam du ko yëg walla nga yéeg ci kaw mu yëg ko yuuxoo la nga fëgg bunt bi tëb daw ñu dàq la nga dugg ci suuna si réer yi suñu xëyee ñu toppatoo ba xam ne diw la ñu jël émission bugaan bi waxtaanee ko xam ne mbokk la ndax yegg na ci yow nga ne déedéet ñu dëj ay bokkam ñu waxtaanee ko ñépp trouver solution du siiw xam nga dogaale xalifa xamoo ko de da ne bàmba ci àll bi yéeg ci garab yi xale yu jigéen yi dañ daan dox di jaayi soow wala jaayi meew wala ñu dem luuma ja bay ñibbisi ngeen yéeg ci garab yi di leen xaar bu ñëwee ba tollu yéen ngeen cëpp song leen tëddee leen par force booba la góor daan xelam dina ci jigéen léegi xelu kenn nekkul ci jigéen yow dangay daw ñu topp la da daw ñu topp la boobu looloo xewoon kon viol léegi du viol yow yaa ñëw fekk si waa ji ci këram aa ah, yow itam yaa ñëw kër élage naan fa attaaya toog foo waxtaan ngeen waxtaan d'accord ngeen séq li ngeen séq ngeen ne daf maa violé yow kay yaa violé sa bopp loolu du viol viol dafay am force dañuy seen daw si baa ñu doroge ko gis nga dinaa la jox benn affaire moytu ko bu baax léegi-léeg ngis benn pom bu ñuul fii dañ caa pikir saafara léegi-léegi ñu pikir drogue ci pom bi baa banaana bi baa mandarin bi baa orange bi xam nga boisson bi léegi kubéer gi Babacar kawsu la seringue bi ngay def sa drogue bënn ko ci euh, kubéer gi pompe ko ci bàyyi ko su ndaw si naanee ne dur yii moo xew yégoo koon xanaa maa la koy yëgal da di dox rek mais yi xew dafa bari fur wi yu bari moytu ko léeg-léeg nga ñëw ci man ma bëgg laa def taalibi parce que bëri na dañ li naan liggéey ma def ko ci saafara nga naan baa ma def ko ci lekk gi ñuy lekk nga nga lekkaale ko gëm ma léppay am rekki xel dafa am salbul aql dafa am rekki xelu nit ba dootu ànd ak sago mu dof ci yow dañ koy def ci pom di ko def ci banaana di ko def ci xeetu fruit yëpp di ko toggaale ci ñam moo tax ku vigilaawul foo jëm ñaar moytu ko Babacar ñaar moytul bañ kumpa moytul fuqle bëgg bàmba boo bañee kumpa doo teqale ko naqar doo teqale ko xalaat parce que lu ne ngay yër te da ca fekk lu la neexul nit ku baax du dañ du bañ kumpa bul fuqale bëgg lekk baaxul xamal la ngay lekk xam fa ngay lekkee xam la nga ca war a lekk ti nga bàyyi moo tax li may dégg léeg-léeg ñu ne diw dafa violé diw déedéet du viol ñaari mag yu d'accord ak caay-caay def seenu caay-caay ana viol ay na viol mais amu ci du donc yooyu ñuy coow naan ay association telle association déggoon naa fi sax ñuy wax ay affaire lan euh, droit de l'homme lan mooy droit de l'homme yàlla indi droit de l'homme nga indi droit de l'homme ci kaw yàlla li sëñ kër Si daan wax ne tàntu jàmbur ku ca tàntaat kay loolu la daal yow dëgg la cheikhul xalifa ko daan wax tàntu jàmbur nga ñëw tànt ci suufu tàntam sa tànt du feeñ viol bi charia tudd mooy viol droit de l'homme bi alquran tudd mooy droit de l'homme mooy an nafsu bi nafsi ku rey yàlla ne rey leen wal juróoxu xisaas ku jam jam leen ku tuur bët ñu tuur sa bët ko dagg tànk ñu dagg sa tànk ko jam nit ñu jam la ku rey ñu rey la loolu est-ce que bu amoon nit ñi duñ am jàmm wa fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab yàlla nee bu doon ko def ñu def la ñëpp am jàmm mais dañu ñëw waaw eh, dégg naa taalib ira man aw ma taalibi ne damay misaal rek mm. man soxluwuma taalibi ndax xaw ma fu ma jëm ëllëg xaw ma lu may dajil ëllëg man bootu ma kenn ndax attanu ma kenn man attanu ma sax sama bopp moo tax ma bootu ci yàlla mais di ñaan ne wayu taalibe bi Iran la nga téléphoné allo na ngeen def ça va waaw kooku la monsieur procureur mu ne waa mënu xamoo sax noo koy waxee <laughs> waaw kooku ngeen jàpp bëgg Bàmba suma taalibe bi la gis nga eh, ngeen bàyyi ko xel nañ ko bàyyi nu mu gën a gaawee nag nu mu gën a gaawee mhm. ngeen ne ah waaw sëñ bi mu ne eh nu mu gën a gaawee ne la karaj da napp rek dara la xamul fii simba fi ne mais gaynde amu fi réew mi danoo simba rek gaynde amu fi dañuy sóob rek dañuy sóob rek xam nga lu xew koo fatt muy toxoñu rek a xew mbër mu sàllar ñëw poussière bi naaw fatt la ngay toxoñ di def mi rek a fi xew ke dara xewul yàlla rek a xew coow yéeg détail yéeg bëgg a siiw rek te kilifa yu ci bëri am nañ sit internet xam nga loolu walla xamoo ko. Mm-hmm. bëri na site yoo xam ne ay kilifa lañuy ñuy liggéeyal xam nga ko wala xamoo ko mm-hmm. li ma ci xam du jeex ku ñëw ma ku ñëw jël ma ma waxal la. Mm-hmm. xam naa ne yaa kilifa gi yëpp ay trian ngeen fen ngeen dul dem yàlla dëgg la bëgg. kan moo ni ci njub lay laaj yow El bëgg bàmb boo julli su boo ne bisimilah rahmaani rahiim mhm. loo ihdinaa loo ciy teg adduna bi yëpp kuy jullit ci biir faatiha danga nga ne ihdina siraatal mustaqim boo juboon loo ci ñaan kon kenn jubagul kenn jubagul bëgg bàmb mhm. ku jub loo ci ñaan ihdina siraatal mustaqim mhm. mais boo juboon doo ko ñaan alors que gis nga yi ñuy organiser yëpp fooyee diine rek la mais man tànk maa ngi dund man Iran ku ci dugal sa loxo ma damm kilifa goo mën a doon na moom kay waxal say wax dugal say mbir ti bàyyi fi diine ji ak alquran ji ak yàlla ji ak jumaa yi jàkka yi lu la neex nag yaa xam yaa ka la gëm ak ku la gëmul yéen a xam man sama yoon niwu ci man daal banaa ak li nga gëm ba maag sama yàlla ci coow coono yi ñu dajee bëgg bàmba ci utum xaalis buñ amoon yàlla dootu ñàkk xaalis ah u tappale yi ñuy xewal ay tappale utum xaay tappale for benn cinquante mille cinquante mille ba balaa ngoon mu jeex bu subaa ngu limaam Abdullah naan tappalekat du noppalu day fanaanoo fexe xëy yendoo lalli <laughs> bu guddee mu lal bu xëyee lalli parce que tappalikat day fanaanee fexe nu ma koy duuteeg nu ma koy naxeeg nu ma koy feneeg naka laa koy diggee nangam yooyu rek lay tëral booba dangaa fàtte ne yàllaa ngi la tiim nit bu wóoloo yàlla xam yàlla day fàtte boppam nit su fàttee boppam fàtte yàlla du dem moo tax ñooñu sos seen association bëgg Bàmba loolu taxawul ku njaaloo dañ lay dóor benn sikk nekku ci nga ëmbal sa jarbaat nga ëmbal sa doom nga ëmbal sa sët ëmbal ëmbal la rek waxuma sa ëmbal waaye nga njaaloog moom boo dee bàyyi dañ lay rey ndax am ngay jabar dañ lay rey waxuñu nag dof dof moom dof la dof du tax ñu yàq biir déedéet dañ fay bàyyi doom je te éliminer àtte bi dañuy bàyyi doom ji mu dund ñu éliminer àtte bi ndofa ko teg ñu njaaloog moom moo tax kenn du ko dóor kenn du ko rey moo tax dañuy éliminer àtte bi mais bàyyi fa doom ja ñu naan way bàyyi ma ko ëmbal ak daa dof ñu ëmbal ko wala ñaari dofa ëmbala ñaari dof ni ñuy xamee njaalo bay ëmbalante yow yow dof nu muy xamee njaalo ay caaxaan la ay caaxaan la léegi en aucun cas avortement amul fu mu dagane wala am na foo xam ni lislaam bàyyi na fa xel avortement su ëmb amee amatul bàyyi bàyyi nangootu ko lenn rek a mën a nekk nga xool jigéen yow xalifa médecin nga nga wax jëkkëram ne ko ëmb bii danañ ci taxaw mën na ci ñàkk bakkanam mën na ko waaye danañ ko suivre su amee doom na wëlbati njurukaay gi parce que su ëmbatee mën na koo rey waaw lu judd lu lu amagul du rey lu am ñu ne d'accord nañu loolu charia nangu na ko waaye biir ba pare liir bi ne ci biir bi mais est-ce que yow mi koy yow mi koy dindi est-ce que bu la yaay ëmboon ba nga toll ni nga toll da nga nangu ñu rey la <laughs> waaw est-ce que xam nga ko xeexal jigéen ñi mooy Muhammad makka dañoo daje ni ku jurati doom bu jigéen suulal wa isal mawudatu suilat bi zanbin qutilat yàlla laaj leen ne liir yi ngeen suul wax leen ma luñ def ba ngeen rey leen ñu ne yëngu yëngu rek ñu def benn congrès wax ni ku jurati doom bu jigéen gas ko nga suul ko ñu ne lu tax ñu ne jigéen di indi gàcc ci société bi Omar ibn Khattab jur doom bu jigéen ba muy dëgër mu gas kàmb yëlëb ko ca biir xale ba xool ko di ko ree image bi des ci xel bi Omar daan na toog def nii ñu ne ko amirul moom mu ni nii fekk image yu xale bu jigéen ba mu sóoloon lay xalaat soo masee jur doom bu jigéen nga dem maternité génn bu congaan ni tëll ronko ñuy tuuru muy fomp ñu ne ko siggi ndigaale teetal li doom bu jigéen boo ko jëlee si indigaale ngay dégg salat woo ci woo kasiman alxuraan ko xar këram bi di triste ci ngay xamee ni kii doom bu jigéen la jur su ne tëll di ree nag nga xam ne doom bu góor la jur yéen jigéen ñi soxna si yow laay waxal yéen daj ngeen fi lu ne bu du loon yonent bi ngeen xam ñu oote kongore nag génne benn décret ne léegi ku juróoti doom bu jigéen gas suul mooy décret. Hmm. ñu ne d'accord nañ yeneen tubaa ci jataay ba salaay salaam ne nii ñu ne ko bisimilah mu ne damay laaj ndax yéen ñii fi toog buñ suuloon seeni ndey da ngeen juddu question bi leerul ah moo tas daje ba yow aboo jëli lay wax ak yéen guub pon ponkal yi toog est-ce que bu ñu suuloon seeni ndey da ngeen juddu bàyyi leen xale yi juddu ñu tàcc ko mu jël ndam la ñu bañ ko kuñ suuloo si yaay nuy juddoo kon nuy suulee ay jàmbur ay dañuy rey xale ak dañuy def képp ku nangu ñu rey xale ci yow su yowmal xiyaame ñi yàq biir ñépp yàlla day yëkkati liir bi ci kaw def ko nii ne ana Babacar ngeen ne maa ngi mu ni la liir bii de yaa yaa fayoon congaan mu médecin congaan mu dindi biir bi yaag mëti mii ma laaj leen nag liir bi nu mu def ba ngeen rey ko wa idal mawudatu suilat bi ay dënbin qutilat man waxuma waxi tappale alxuraan laay wax seen caaxaan yi baleen ko bu leen ànd ci loolu kuy jullit mu lànkal ku dul jullit sax lànkal loolu dafa yenuwul maanaam day tax caay-caay gën a bari moo kàppoot yee yem rek kàppoot yi fi wuyu la rek góor nu muy takkee kàppoot yow yoroo jabar yoroo dara nga monte sa kàppoot dem wax ak jigéen nga njaaloog moom ñu naan boo ko monté day tax kenn du ëmb plastique la kàppoot plastique la dafa rattax mën yu dafa rattax ah awra bi dafa rattax mu tuur ku ci biir est-ce que mënta fël ci kaw moo tax ñaari ñi koy jëfandikoo bu seeni gel ëmb ñu ne la ëmbaluñ la parce que kàppoor laa jëfandikoo mais c'est faux dellu leen ci li ngeen di wax ci alxuraan ihdina siraatal mustaqim yow yaay ñaan njub ba pare jubadi foo ko teg yaa ko biiral nañ la duma boo amee jabar ñu rey la soo amul jabar ñu duma la ndaw suñu biiral loolu atteem ndaw si ñu biiral biir ak bañ a biira ceem gis nga lii xool leen yéen caméraman lii mooy awra jigéen par exemple bopp bii mooy bopp awra góor man jàngalekat laa man damay jàngale lii mooy bopp awra góor lii mooy awra jigéen gis nga boo sëy jigéen sa bopp awra yem fii ci bunt bi àtte nañ la àtte njaalo soo amee jabar dañ lay rey soo amul jabar ñu dóor la téeméer yar amul mu dugg ba ca biir déedéet fii rek maxibul xasafa sari fi fo xaaw bopp sàkkara si rek moo dugg ci biir awra ndaw dañ bu dee am nga jabar dañ lay rey soo amul jabar ñu dóor la téeméer yar kon biiral nag lu muy jëriñ mooy ponkal mi nga naan ma lan <laughs> biiral mooy ponkal mi ni ñu bàyyi caaxaan ay avortement fii ay yàq biir fii lu tax ngay yàq biir man su ma la ndomee bëgg la mais la ma lay ëmbalee ma takk la. am déet dëgg la man damaa xamul lu xew di biiral doog a takk loolu luy ndeyam. waaw waaw léegi kon ana mbëggeel kon daa am loo bëggoon ci moom mu jox la ko yow congaan wa illaa dangaa nam mu góor rek a ah, ñaar yi rek fu man a ne rek bëggal ko baa nga bëgg ko mm-hmm. xaalis bu mu la jox baa dangaa bëgg góor waaye man jigéen su ma la nammee ëmbal te ñuy bëggante guddeeg bëccëg di gisee bu ma la nammee ëmbal ma takk la ko ëmbal takk ko dootoo ko wóolu jigéen ku ku yegg ci kawam dindi ndawam même boo ko takkee dootoo ko wóolu fu mu dem voyage yéex a ñëw danga naan boo demee la ma ko defoon la ko gaa yi def waaye soo fekkee ci jigéen ak njànq waxuma njànqu tappali foo njànq am na nag dafa am foo foo njànq ak foo uh-huh. médecine médecine dafa avancé uh-huh. mën nañ la defal dara nga naan ko mu tappalewaat sa awra mais c'est faux c'est faux baaxul mu nga mel ni clé minute bokkul ak vrai clé mm-hmm. am déet bokkul ak vrai clé mm-hmm. dañu mënta am vrai ñu dem Ablaye ba defaral ñu beneen kele bu ko ubbi baaxul donc euh, jël jigéen biiral ko ba pare ñu may la ko man boo ma ko doon firiloo xaw ma pirim mais sëñ Babacar bëgg nga xale bi yow xalifa nañ la ko may lu ca juddoo jaar ci lu lew danaa la wax benn affaire na nga ko bàyyi xel bépp jigéen bu ñu jébbale jëkkëram fekku ca ndaw na jeexal ci respect am déggoo ma bépp jigéen bu ñu jébbale jëkkëram fekku ca ndaw jeexal na ci respect kon xanaa yow Oustaz loolu bokk ci lu causé léegi crise yi am na leneen lu am na loolu ci ne congaan loo yëgul hmm. léegi-léeg nga dégg ñu ne waaw man daal xale bi ni mu toppee ku góor ki damaa est-ce que liggéeyu ko hmm. ñu ne ah, booy yi nag dañuy liggéeyaate de waaw beneen liggéey la bu ngeen xamul hmm. dafa yegg ci moom dindi ndawam te bu séyee feneen ñu xam ne du jànq kon dalay topp yow nga takk ko bu ngeen doon séy weer mu tas sax fu mu dem ñu ne jànq la woon dafa amoon jëkkër lii de mooy liggéey bi muy joob bi joob bi ngay dégg noonu ji nga joob boobu ngay dégg mooy bii dalaa joob du joobu xalima du joobu kurus yaa ko tëddee mi ay yooni yooni yoon nekkatul jànq dana xam sa yaay dana xaritoog sa yaay dana xam sa papa dana xam say frère di leen neexal ñoom ñépp pour nanga ko takk soo ko xasee takk nag ba mu bañ jébbal la ko jeex na su leen neex jigéen dana wax góor ne ko takk ma wàcc ma ndax boo liggéey bu ma sëyee feneen ñu ne amoon na jëkkër. dëgg la suturaal boppam. ah suturaal bopp bonuk boppam nga naan suturaal loolu dig def sax mbon ba kii nga naan nañ ma léeg laa moo tax ngay gis jigéen topp góor Babacar du xalima de geneen xalima gi la. beneen xalima gi. beneen mag yi la dafa ñàkk fayda bañ yegg ci kaw lu ko fi jar man boo man nobee takk ma léegi-léegi jigéen yox benn baat takkal soo ma takkul ku ñëw ma séy ak moom ana mbëggeel kon congaan yow mi wax dama ne wan man mbëggeel su doon yow la bëgg ti muy dëgg du la ne boo ma takkul keneen takk ma kon kii bëggul day raas baana baana la madame baana baana xam nga baana baana loo rek la bu mango ragee mu bàyyi mais bëgg maam asuka nee na mooy yaay Serigne xam Ahmed Tidiane si Maktoum nee na bëgg du bañ bañ du bëgg ku bëgg nag mën naa mer mais du la bañ mukk bañ du bëgg mukk mën naa maslaa rek kon na jigéen ñi téye seen bopp yonent bi xeexal na leen lim leen waroon a xeexal ba féetee na boor buñ ko defaloon xam nga bu njëkk lu xewoon. Hmm. da ngay ñëw ci daral gi jigéen ñi rang ci biir comme ni ngay demee lu ma yi nii. Hmm. alaaj nga fekk ñu xar yeeg bëy yeeg hmm. nag yi jigéen ñi buñ woddaan lu toll fi dañ koy lëkkaayu nii de lii lépp seen yéeli tout ci biti lay parce que genre bàyyi ma lañu soo ñëwee nii ngay def nag di xool yow miy jënd xool xool jigéen ñu rafet nga ne kii ñaata. ne la jox ma cinquante mille wàññi ko waay mu ne ay ah, jongo ma la de loo ci mën ngee ne mën naa trente mille mu ne non non non non defal trente cinq mille def trente jigéen dañ ko daan jaay di jaay góor góor ñi dañ leen daan jaay ci dara lii nga dem waxaale jënd tey tey léegi jigéen ñee jaay boppam kenn jaayatu leen ñooy jaayi seen bopp góor ñi kenn jaayeetu leen ñooy jaayi seen bopp matastaabatum naasa wa qad waladatum ummahatum ahraara Omar ibnu Xattaab ko wax nee na maa ngi doog a gis gor su nekk jaam loolu kañ la xew ma defoon jaamay doon jaam waaye gor nekk jaam loolu kañ la xew noo koy nangoo da ngay xool xale yi ni yi ngay gis koo xam day jiitu ay xale topp ko ci politique beeg ci diine jéeg ci caaxaan yeeg yépp ñu lay tàccoog yu kenn xamul yow sa yaay di la xaar ëmb la ëmb bu métti wasin la wasin gu métti nàmpal la nàmpal gu métti nga war sa gannaaw gu yaay ay yoonu yoon mu boot la nga génnee foo xam ne ca kanamam ga la awra ni mu suturaaloo nga génne ci bunt boobu ñu bënn sa dënnu yaay nga nàmp ci weenam ngay cabinet mooy raxas ngay saw muy raxas seetal génnee nga tax yow xale bi ñu dem hôpital sage-femme yi wër sa yaay jaaxaanal ko ci kaw taabul ji tas séram say moromi jigéeni ndey gis sa awra yi ndeyti yaa tax gis sa awra yi ndeyti yow doom yaa tax war nga boo màggee masawu ko ci man teral ko wa bil waalidayni ihsaanan yaa ne ki teraanga rek a jekk ci moom terala sa baay teralal sa ndey ndax moo jekk ci yow nga am sa xaay di ma ko jox man Iran yaa ñàkk fayda est-ce que man sama doom dana am jox la ko waxal dëgg sama doom du du la jox sa du tus la la dul jox man bu sa baay ne te la ma jóg nuyu sa baay nuyu la lu ma am jox la jox sa baay te yow sa baay du jox sama baay te doo jox yow sama baay billaay maa ndondi ceem loolu ku koy nangu nooy def sa liggéeyu yaay da koy sànq kon yàq bii rek ya ca aju dëra daganul jël jigéen ngeen bëggante takkal soo amul mooy ki nga koo bëgg doo ko biiral wallaay maa la ko wax koo bëgg biir ni mu doonee gàcce nga bëgg jigéen ñu toogatoo gis ko lu ba jiitu mu topp ci kawam kër bëgguloo ko koo bëgg doo ko toroxal dana la sàkku sax nga ne ko non non defal ndànk ba yàlla may ma li bëgg ma takk soo demee ba mu nar ci dogu boo amee ñaari junni nga dem ñu may la ko lu ngay def mu lew waaye defal ndànk damay dajale tii dajale yaa garaaw defal ndànk damay dajale tii dajale yaa ngi sotti sama nii di yaa ngi dajale ti nee nga dangay dajale xaalis ba ndaw sa ne faaj yow yaay kan tontu ma viol bëri nañu tëdd ci kaso yoo xamante ni tey tëj lañ leen ci sans preuve jigéen mere la wala ngeen nekkoon lu yàgg xëy dem déposer plainte rek ne dag maa violé oustaz ndax waruñoo xoolaat àtte yi ñuy jàppe nit ci viol wala ba xam ñoom daal neenañ boo nanguwul rek viol la déedéet bajantu dafa am ak bañ bañantu ak bañ bëri ne koy bañ di fekkutu fekk mu ngay nangu moo la ko gën a bëgg day fen rek su ko defee mu jooyantu dañ ko koy digal gisoo léegi yi xew dangay ngay dem enregistré ndaw si day dem enregistré la léegi booy wax am na bouton bu ñuy bës di jël li ngay wax kooku bu leen neexee yóbbul ko procureur procureur lum ci xam du yàlla ci loolu rek lay sukkandiku benn jigéen daf ma mas téléphone ñuy waxtaan mu ne ma man daal dama laa sopp ci waxtaan yi ngay def nangam nangam bu ma yàlla mayoon ko mel ni yow ma ne ko na sa baay takk mu ne ma karaj na la sa baay takk ti biiral la mu ne ma pataj booboo ci baax di fa mu jëmoon xam naa ko maa ngi wax wóor na moom mu ngi enregistré parce que genre école la def su paree da koy jox waa seen bës ñoom bës rek lañu bëgg ñu naawal ko est-ce que xam nga nit ñun ay millions di doomi aadama ñu ngi taxaw pour ñu dugg ci kàmb ci ay sëriñ ak i boroomi alal ak i kilifay àdduna ñu ci bëri am nañ sit bëri na yoo dégg ñu koy teg ci Iran kilifaa leen oo sant leen ko waaye dañuy mujj torox man pëli pëng laa ganaaru kenn nenu ma yàlla rek ay sama borom da ci kàmb ngeen jëm ma dëggaate leen doxi sama soxla dama joxe misaal ci man rek dafa bari ñuñ koy def ustaas yi di jàngale gars dañ leen koy def woo leen ni diw li muy wax arrangé wuñu fexeel site bi buñ xam ne maa ko moom man nag fi ngeen muy gis aw ma benn site benn site aw ko dara laa amul yéen ñëpp maay seen mag mm. mais aw ma site internet de mm. jamais du ma wax loo kenn lenn mm. su defeere jotee nag may deferi diggante danaa wa bëgg bàmba ni ko jëlal lii nga dugal ko mm. def naa ko seen bës mm. congaan mi mm. wax kenn tuddutu ko jeex na bu yàgg pour wax leen ne yéen ñiy liggéeyal diini ak yéen ñi ne ci politique bi ñépp a ci yam am na ñu leen di fexeel surtout nag koy wax lu arrangé wul peuple bi mm-hmm. arrangé wul euh, responsable yi li ñuy xaar mooy nga ne ci kàmb sër ñu ne jokkee du taam nañ ko suul gaaw gis nga bu ngeen doxoon ba fekk ma ci kaw jigéen ma wax leen lu leer bu ngeen doxoon ba fekk ma ci kaw jigéen ngeen yëkkati ma keroog lay gën a mën a waxal yàlla man bandi laa waaye yàlla ku baax la keroog laay gën a mën a waxal yàlla moom muy bërru man maay man maay mbindeef waaye naan bett gi ñu ma bett damay noppi pour lan damaa def bàkkaar séq ko yàlla damay woote rek waaye nag lii diw def bu ñu dootul wax ñu naan la massa xam nga Sénégal a mel noonu sama doon yow lii dañuy fen man sama baat ni poto tiwaawoo noo tay ba ga ma firee alxuraanoo saalum ga ma juddoo Thiès ga ma liggéeyee ndakaaru gi may liggéeyee kenn xamaluma dara télé bii ma ne aw ma fi gel ñaata at te dama lay laaj ñaataat at des années xam nga am na ñu ne ci télé mosuñu maa gis billaahi mosuñu maa gis barke alxuraan mosuñu maa teg ba damay ñëw rek tourné wàcc dugg sama oto dem mm. man ay tappaleeki caaxaan xajuma ci su may bon damay bon su may baax ma jéem a baax baax ma mënuma koo def mais damay jéem mbon nag yomb na waaye ñu jël seen ay site internet wala jox la xaalis seen nguur soosu seet leen ak nu mu noppi noppi man keroog ba ma waxalee lu bon keroog laa gën a ŋàlli ko dama naan ngalañ ñëw géej luy tiit nit ñi dañuy simb rek di fen rek kenn waxu ci dëgg dañuy simb di kenn waxu ci dëgg nit ku baax day bëgg yàlla nit ku baax day def li yàlla bëgg xam nga man congaan lu may intéressé nit amul katolik amul jullit amul nit ku sonn rek ma jox man baasi wu ma fen ay tariixa ak yooyu man duma ma tariixa ma nit laa ma nit ku mu mën a doon ngay nit sonn ma taxaw man loolu laa xam waaye yow ñuy wax la benn baat sëriñ su bari ñemee wu ñoo wax ndax dañ ne xale yi dañ leen di saaga ah après bu la saagaa nag hmm. yow saaga boo boo bañul kumpa doo dégg saaga wa fexeel ba bul bañ kumpa rek hmm. bul am ñu bañ kumpa rek bu la ko kenn dégtal ti bu ko dégg jàmmangu te bis boo xëy rek dabaj ko ci gis nga su ma waxee wax gars yi di ci commentaire damay ñëw dooraat ci xam ngeen ci dara mos ngeen ko hmm. déglu ngeen ko fan yi ci digg ba lay jaaraat déggati ngeen ko ci waxati dootuñ ci wax dañuy xam juumi lan man wax maa ko tey juum yow loolu dara nga naan lan dañuy fen rek dañuy fen rek ak bëgg siw ak bëgg mais deru Iran loo ci lekkee xaalis ci lekkin bu ñaaw sama vie privée lu sa yoon sama vie privée la Amadou lu sa yoon du vie privée élage du bu congaan du bu Babacar du bëgg baab vie privée Iran la mais Babacar lu ci sa yoon xanaa loolu mooy wane ne maandu su ñuy wax ci réew mi nag sañ nga commentaire wax sa gis-gis waaye vie privée Iran lu ci sa yoon man boo ma xullee ma xullee gën a ngàndante ba tafe nii waaye xabaj xabaj xabaj la rek waaw dama lay xullee rek tiit bul gis defee ci àdduna ku yàlla bind ma ragal ko am na wala ma xalaat la am na yàlla rek lay xalaat seconde du ko génn sama xol seconde yàlla du ko génn sama xol jël limaali wu ma kenn ci àdduna naa rek su ma la tooñee Babacar demal boole ma yàlla mooy sama kilifa wala nga baal ma wala nga dem ñu tëj ma ñetti yee bul dem ci benn mbindeef su ma la tooñatee demal nga boole yàlla ne ko sa jaam sa njaboot moo ma def lii ñaar rakk boole ma ak wala nga bañ maa baal boole ma ak ñu tëj ma wala nga baal ma may mbindeef mu yàlla bind may ñëw naan moo ma yilif néew pour mu dimbale ma moom mu yori problème bëgg ko ca dimbal la ma waxoon sëñ bi ma ne ko yow looy wax yow yaa ngi am sa ziar ma ne ko nga baal ma ne yaa ma wax loo de mu ne waaw ma ne ko ziar bi tas nit ñi guddee fi nga ne leen dem leen wuti fu ngeen fanaan te nga digleen leen aljana sa gi bëggoo ko fanaan nga bëgg këru yàlla nga fanaanal fa nit xam nga ne danga leen di nax hmm. koo fi gis mu am gan bu guddee gan nga du fanaan këram jamais xanaa muy gan ko am xaalis Iran da ko wax. ay man yooyu suma yoon ne wu ci te li ma leen wax dëgg la ku yorul. ku yorul boo demee seeti doo gisee ku yor da ngay téléphoné ñu xaar la ndékki xaar la añ xaar la reer bu dee heure yi benn la. wóolu leen yàlla ti ngeen dem liggéeyi. Mm-hmm. man seen si seen sit yi ñor na ma lool. Mm-hmm. waxtu wu ngeen di ñëw damay sonnu lool laaj ko Ablaye mais ñor ngeen ma lool ndax jom ji ci yéen ak nangoo liggéey man loolu laa bëgg mais ponkal muy sol pa basin di xeeñ parfum marakis yu bees koppati mu bees lonet yu bees di di macc làmmiñ góor nu muy macce làmmiñ ni gel parce que sa moroomu góor la yor du ma ko nangu man kay damay xare su ma amee ndambe lekk man léegi-léeg sama kër bu ñuy reer caaf lay reere caaf caaf mburu lu ko dàq amul mooy pala maçon surtout caaf ju saf xorom nga booli ko mburu ti teeylu ko sàq mi ko bam nooy nga wann ko boo naa ni si biir bi kekk lay def mu ngoog Amadou maa ngi wax loo miin mais c'est ça noonu la simple la lépp ginnaaw yëpp ci wanag wi la jëm na simple rek waaw lépp ci wanag wi la jëm na simple loolu mooy dëgg. góor kàttan baax lool ci góor gu tële ba góor gu gaaw a daanu am ka lu yomb la contactel gaaw ci numéro téléphone yi ngeen di gis.